laa dog loolu lépp amatul kenn kuy nekk intermédiaire sama digganteeg rasulullahi imaamul fariqiina imaamul fariqil islaami ki nga xam ne mooy imaam ëpp kuréelab lislaam di rasulullahi moo ñëwal boppam ci man jox ma nag faydu ba boobee nag tëddatuma kenn amatuma intermédiaire man Serigne Touba moo tax rasulullahi doon sab Serigne waaye nak ku baax ku ne nag sañ naa sax mbaax mu ne imaamul fariqil islaam boobu di rasulullahi ba mu ñëwee wajasa ba nii daf maa jàpp ilahi jëme ci ci boppam loolu nag inaayatan ndimmal la minallahi loolu tukkee na fa yàlla wa ak ndimmal lool tukkee na ci rasulullahi keroog nag saqata la rot min nii ci man sëriñ Tuubaa amrul wasaa'iti mbiram digale ba keneen di doxati sama diggante ak yàlla ku du rasulullahi moo nag keroog la root nag amrul wasaayiti mbiram digale ba xayruhu ci keneen ku dul rasulillahi ma baqaayil muwaasalati ànd ak nag ma des ak rek mu di ma jokkale ci yàlla muwaasalati fillahi mustafa sallallahu alayhi wa sallam moom rek nag moo may jokkaleeti fa yàlla wa tahaabu bi ak soppante nag nekk sunu diggante mag rasulillahi fii ca loolee wa tanaafuhi ak jariñante fii ca wa sadaxa ak ak dëggal fa amruhu mbiram ma ali sayxi siidiya ak njaboot ak seex siidiya nag moom sëriñ Tuubaa seen diggante aaxiru muj ga yaddulu daf nuy tegtal allah siddiqi maqaalihi ci dëgg ak yi lay kaddu is ngir saaru saaroo mujj nañu ñoon njaboot ak siidi baaba ga muy naari gànnaar yooyu loo ci sëñ Tuubaa kal ab nee i mel ni ay doomam mel ni ay doomi Sëriñ Tuubaa ñoom njaboot ga ngir sopp ko bëgg ko wekk ko respecté ko wasaara Sëriñ Tuubaa mujj lahum ca njaboot googa kal ab bi mel ni seen bàyyi yan fa huhum Sëriñ Tuubaa nga leen di jariñ bi am walihi ci alalam ma njariñ loo xam ne lam yan fa hu du leen ko jariñ maalikun ab buur xattu mukk wala sayxun ab sëriñ mënu leen koo jariñ lit bàyyi ab sëriñ mënu koo jariñ na koy topp wa ma daxawoo ñuy tagg sëriñ tubaa nag ñoom naar yooyee ndeysaan njaboot ak Cheikh Sidi Baba yooyee nga xam ne ay bii daan lañu muy naari gànnaare ña ngay tagg nak sëriñ Tuubaa te ñoom ay sërif lañu wa ma daxoo sayxu baaba wa ma daxawoo ña ma ngi koy tagg nag moom sëriñ Tuubaa a sayxu baaba sayxu baaba bi xasaayit yi ci ay xasaayit wa xitahin aki dog maj moohu maj moohu boo ko dajalee lañ ko tagg moom Serigne Touba ñoom ñaari gànnaar yooye rawate na Cheikh baaba abiyatiha nga dajale bayit ya yu haddu day limu bi mi atin ba egg ci téeméeri bayit wa min jumlatiha bokk na ca bayit yooye xawluhoo waxam ja muy ñaari bayit yi ma lay dégtal moom Cheikh Baba nee na Serigne Touba assayxu Ahmadu Serigne Touba moomu di Ahmadu Bamba nihimatun ay xéewal yoo xam ne awlaaha yàlla moo ko jox asil xalaiqi bindeef yi nga xam ne ñoo dëkk ci Afrique saw jant yàlla leen may Sëriñ Tuubaa mu doon xéewal yoo xam ne yàlla leen ko baaxe rek kullaha ñoom ñëpp ñu bokk ko ki leen ko may nag mawlaha mooy seen seen borom di sunu borom bi subhanahu wa taala moom daal tagg woowu moom la jëkk a tagg Sëriñ Tuubaa mu ne sëriñ bi daal xéewal la yàlla wàcce may ko ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teel ndeysaan ak weneen wayu ngi nii wu mel noonu ay maanaa mu ne innama sayxu naka sëriñ tuuba nihmatun ay xeewal la xeewal yoo xam ne anhamallahu yàlla moo ko xeewalal biha ca xeewal yooya ayatun mu di kéemtaan minal ayaati bokk ca kéemtaani yàlla mu ne seen tuuba ay xewal la waaye tamit kéemtaan la yu bokk ci kéemtaani yàlla yi yàlla wàcce wàccel ko waa bi bokk na ca yeneen tagg ila xeyrihima ak yeneen tagg yu dut yooya walaw lam yaqul doon lente ne waxuñu fii ci moom al azayni yi lay taalif al baytayni ñaari bayt yi lakafa doon na doy saadatan seere allah jalalati asa sayxi mu ne bu fekkonte ne dañuy yem ci ñaari bayt yi rek ci seedel ko sëriñ Tuubaa doy na li tax mu doy mooy màgg ki ko wax wa wilaayati ak wilaayay sëng bii ko wax muy Cheikh Baba ku mag la ku am wilaaya waaw waaw moo tax mu ne wa wilayat yi wilaayam ga mu am ndax li ànd na say xibaaba mii wax lii ci sëñ tubaakat ala jalalati xadri yi ci màgg dara darajaam moom seexu baaba laa yal xoo du teengal du wax lu ëpp mukk lu mu wax am na ca ndigalal boromam wala yet tajjiru du waxit ngir di ca yaxantu bëgg es neexal ko ca dara déedéet buy wax yàlla tax muy wax kon lii mu wax sëñ tubaa yàlla la yàlla la ci jubal doog koo wax mu ne kooku day du yaxantu fisiir yi ci ay woyam ka yi ni ko woykat yenn yi defee di wax dara bëgg caa am ak dara tax nga sopp nga nga nga yokk ko wax ja sakkanal ko ba dolli ca lu ca bokkul mu ne Cheikh Baba mii di seddal sëñ Tuubaa bokkul ca woykat yooya moom lu mu wax rek da koo wax ci maandu wa innama yaqulu naka la nga xam ne wax na ko mu ngi ko wax an isni ci ndigalal sunu borom an isnin ci ndigalal sunu borom la ko wax te loolee mu wax kat taqruban daf koy gën a jegeloo ilallahi fa yàlla jazaa allahu yàll na ko yàlla fay yàll na yàlla fay tamit kulla waahidin kenn ku nekk min huma ci ñoom muy Cheikh Baba ak Serigne Touba yeleen yàlla boole fay an saahibihi tayit yàll na fay seeni àndaale xayran aw yiw wa baraka te mu leen barke fi aqibi mu def barke tamit ci ñi nga xam ne ñoo leen fi wóotu ñoom ñaari sangu yu tedd yooyu muy Serigne Touba ak Cheikh Baba ki nga xam ne mooy le wax ji nag mooy Mamadou Lamine Diop Dagana yal na ko yàlla fay mu ne wab xaa des na dawla wab xaa tayet yal na yàlla desal dawlatal kulli nguur ak ku ne mooy barkeeb ku ne ci ñaar ñooñu yal na yàlla desal ci seen ak njaboot ilal jannati lati ba ca àjjana ma nga xam ne waxi dal mu tàqoona yàlla dig na ko way ragal yàlla ye yal ci yàlla boole amin yal na nga nangu yaa rabal alamina yow borom bindee fi